Assalamualaikum, assalamualaikum wa Sénégal Assalamualaikum les honorables députés monsieur le ministre mang ngi lay nuyu yak ministre Mustafa Ba ak ya eh, ministre Samba Sy di wax né man bu ma baña jël parole sax du ko jël ndax plaid defal nga ma plaidoyer monsieur le ministre des finances ndax xam nga dossier bobu dossier bu am importance la te itam bi xale yi bëggee déborder yaa leen arrêté teg leen ni leen toog leen dinaa ko lijjanti kon vraiment boo toogee fàttaliwaat ko loolu lu am solo la jëlul sax ma di ci wax. monsieur le ministre ndaw ñi nga yore xam nga Sénégal nan waxante dëgg nit ki bu fekkee ni jàngoo amoo diplôme amoo métier employé la la day jafe waaye nag Sénégal dafa am suuf dafa am ndox ma bëggoon. ngeen yok ngeen dag tool yi def forage yi wut jiwu bu dee mbayum noor la bu dee mbayum navet la ngeen defal ko xale yi département bu nekk ngeen def fa tool bu mag xale yi dem fa di fa liggéey loolu laa yaakaar ne dina mën a dimbali ndaw ñi ci lu baree baree baree bare ndax bu ngeen waxee ne Sénégal dafa war a dafa war a dundee li bay te toppatoowu leen defaru leen ay tool toppatoowu leen xale yi ñu dem bayi lolu itam day nek lo xamni ne du nexa rek le xalé yi sonn nanu marchand ambulant la ni def ak di manœuvre ta lolu taxul ñu mëna am dara emploi yi ni defal xalé yi nan 10000 emploi lolu du emploi ndax emploi ye bo xamni sa salaire matul cent mille francs ta nga yor kër yor jabar yor dom lolu vraiment nek na lo xamni du salaire du emploi bo febaré do mëna faju bo amé soxla do ko mëna faju kon man loolu laa leen di diggal ngeen delloo xale yi ci mbay mi delloo leen ci tool yi bu ko defee vraiment ñu mën a am lu ñu yore seeni kër problème suuf nag ñun géeja waaye am nan ko xam nga amuñu ko woon waaye léegi am nan ko dag yooyu ngeen di wax ñëwal nga nga def ko géejawaay jël xale yi ñu bay bu mbay mi jàllee yar a ngi fi yar ginaar a ngi fi yar xar ngi fi yar pison même pison dañ koy yar ak nag yi bu ko defee bu ñii dee yar ñii di bay lu nu lekk ci ginaar dootul manqué lu nu lekk ci yàpp dootul manqué lu nu lekk itam si mbay mi dootul manqué bu ko defee xale yi am emploi Sénégal jëm kanam man daal loolu laa lay digal ci li nga xam ne mooy emploi des jeunes entrepreneuriat des jeunes nit ki itam bu amul métier amul dara nga jël sa xaalis financé ko ko amul dara lum ko liggéeyee xaalis boobu dey diig nga indil ko problème parce que du mën a fay te bu fayul juste